Sénégal Maguette maa ngi lay nuyu. maa ngi nuyu le ziar di di di remercier ci invitation bi. ñu ngi lay gërëm bu baax yow tamit ci li nga ñëw wuy si sunu euh, invitation euh, ba nga fiy gëj euh, war na am ñetti weer jàpp ñeenti weer ñu ngi doon waxtaanee immigration clandestine bi jamono jooju bañ koy wax sax dañoo yaakaaroon ni egg nañ ci cëppaandaw li ndaxte c'était terrible ay mort ñu ngi doon am par dizaine waaye léegi ay centaine nag la ñuy la ñuy lim ay téeméeri nit ñooy ñàkkandoo euh, seen bakkan na ci benn yoon ci géej gi euh, mbir moomu tey boo koy gis en tant que ndaw en tant que jeune entrepreneur aussi lan la lay def. waa tey su ma koy gis daf may damay daf may vraiment triste parce que damay toll foo xam ne dama naan ndaw yi fi mu toll nii amatuñu benn yaakaar ci ci réew mi te tey àdduna bi moom li ko tënk lépp si yaakaar rek la la la la nekk parce que tey fépp fu yaakaar amatul rek dara desatu fa. def naa ne tey boo xoolee ni ñuy demee nga gis benn gaal yaay ànd ak doom nga gis mag ak rak bokk benn gaal di dem nga nekkoon kon yi fan la ñu war a toll man c'est toujours loolu laay loolu laay man toujours loolu laay laajte. jigéen sax bu ëmb. waaw loolu laay laajte toujours dama naan dama nit ki fan la war a toll parce que pour man loolu la ñu war a njëkk a mm-hmm. mooy nit ki xelam fu mu toll parce que nit ki dem ba toog ba dajale benn xaalis toog xool géej gi xam ne fi mu jëm nii wóorut mu yegg. mu dee moo gën a wóor que mu yegg mais mu ne maa ngi dem kon kooku ñu xool xelam fu mu toll no pour man loolu moo nekkoon la premier travail bi ñu war a def bu ñu paree ci loolu ñu dem ci ci ci mool yi yi nga xam ne ñoo war gaal yi di dem te mool lu tax ñu jël seen gaal yi di di di dem te ñoom seen liggéey leneen la war a dem jëli jën bi indi ko ñu lekk ba suur kon ñaari problème yooyu tànk que réglé wuñ ko mais lii day gën a garaaw kon parce que bi ñu fiy mujj dañoo yaakaaroon ne sës na. mais tey dañoo on s'est rendu compte que ñun dañoo juumoon kon ndekete foofu da oto bi ngi doon soog a tàkk ñun bi ñu doon waxtaan ne oto bi yegg na oto baa ngi doon soog a tàkk te léegi na oto bi di tàkk aliram mi ngi gën di yokk chaque jour boo seetloo chaque jour bi ngi gën di garaaw tey da ngay dégg cent suba nga dégg deux cent suba nga dégg trois cent mais ñooñu di dem tamit suñuy suñuy mag lañ suñuy rakk suñuy cousin lañ ça reste des comme ñun même bu duñu woon ay sénégalais lii kenn souhaité wu ko kenn kenn souhaité ko kenn te te tànk yi ñu si yi ñu si jëm ni buñ ci buñ ci amul solution yaakaar naa ne dina gën a tey waar. mais teyul sa xel di mu yombee nii xale yi dañuy jëlee gaal yi nii ak moyens yi état am yëpp pour surveiller nos côtes. ak suñuy frontières. mais si dina tey xel parce que aujourd'hui li ñuy wax rek mooy tey. dafa mel ñu ubbi géej gi daal ne xale yi allez dem leen. mais dina tey xel kay parce que tey boo ko jàngatee nii da nga naan mais gaal yi di dem nii fan la ñuy jaar fan nan la ñuy def ba mën nga ne sax booy ragaltuñ dee parce que tey ku ragalul dee même boo ko tegalee armée ci biir géej gi kooku pare na moom kooku moom nekkul pistolet bi la ragal bu dee koo xam ne xam na ne ndox bi mu jëm ni mën na cee dee nga tegal ko pistolet kooku mooy da nga koy da nga koy da nga koy jurgóot rek mais indiloo ko benn problème léegi nag loolu yëpp ay jàngat la parce que tey yaakaar naa ne war nañ am ay moyens yoo xam ne war nañ mën a surveiller géej gi Nicaragua mën nañ comprendre parce que da ngay jël avion wàcc foofu destination bi jaxasoo na kenn xamul fooy jëm booy départ mais lii toogee ci gaal gi xam nañ fi nga jëm mënoo gis benn gaalu 200 personnes 300 personnes nga ne dañuy dem nappi ji loolu an mënut a ne ñoom demuñu nappi ji kon nag yooyu yëpp je pense que c'est des choses yoo xam ne war nañ ci toog war nañ ko xoolaat comme ni ñu xoolee woon accident cyclo bi accident am na am des morts mais il a pour jël ay ay mesures waxtaan ak ñi secteur bi demoon naa fa dañoo mais tey problème am nañ mais on n'a pas conseil interministériel woo jeudi. on peut pas appeler tout le monde mais on peut appeler dans chaque domaine am na ay nit yu fa ne am na nit yoo xam ne mën nañ jàllale ay message parce que wax du doy nit dina wax ba wax loo xam ne yow xamoo ko wan wa nit dina wax ba wax loo xam ne yow mën na am mën na amal njëriñ askan bi parce que solution xamoo fu muy jugee mais kenn defu si benn conseil. bu dul dara kenn waxu ci kilo bi ñeent fukki nit ñoo ñàkk seen bakkan ñu ngi leen di ñaanal euh, yàlla xar leen àjjana ñu def euh, li nga xam ni. conseil d'urgence voilà conseil interministériel ba pare def euh, deuil national. ay mesures waaw jël ay mesures 22 mesures. tey jii ay téeméeri nit ñoo ñàkk seen bakkan amul deuil national amul benn réunion d'urgence bu ñu convoqué. non bu doon maay président damay def def deuil national ba pare. bi yoon mesures yi may jël ci gouvernement bi laa koy jël ak les directeurs généraux mesures yi si ñoom laa koy jël. Ah mais parce que mais ñoom am nañ ay rôle. je pense que président am na ay affaires yu teg yoo xam ne tey jeunes yi waroon nañ am yeneen problème dul naan amatuñu yaakaar ci biir réew mi des 400 milliards yu ñu teg fii ay 60 milliards yu ñu teg fii mais ñoom tey kon mesures si ñoom lañ ko war a jël parce que nit ñi war nañ mën a toog Sénégal li ñu bëgg am ko fi. c'est le temps ñu évaluer programme yooyu yëpp ah. exactement xool ndaw yeeg yeneen mais voilà ñi dem ñi dem ay ndaw lañ man chaque jour wax jooju dinaa ko wax a wax a wax ba président jóge fi man réew mi seen président Macky Sall ñëpp la waroon amal problème bu dul jeunes yi moom moom c'était l'exemple parfait jeune bu fi màggee yaroo fi liggéeye fi ni nga jotee pouvoir bi xeex bañ jox la ko jeunes yi am ci yow gëm-gëm man bi président Macky Sall nekkee président laa ñibbi Sénégal te bëri naa ci ay morom parce que boobu égalité des chances lépp amoon nañ espoir nouveau départ ku liggéey da am réew mi fa la tolloon liggéey am ñu gëm liggéey ñëw toog ñëpp ñibbi si ñëw Sénégal pour defar ko mais tey bu ñu demee ba toll ne am exemple parfait boobu ba pare ñuy gis ne si ginnaaw jeunes yi di am yenn difficultés yi ba pare li nga am li nga wax bilan bi ñu génneel ko ne ko booy yii jeunes yi mi ngi fi nekkee ba léegi ñii lañ fi créé. doxee yu ñu annoncé. non ne ñii lañ fi créé ñu ne ko duudu mii. c'est devenu un milliardaire il est dans le tel. Sénégal émergent bi la génne ak les programmes Konami Fatou Kiné elle est devenue milliardaire si programme bi diw diw diw teg ko télé ñëpp gis ko mu leer nañ ñu xam ne voilà cinquante personnes yoo xam ne wala cent personnes wala deux mille personnes qui ont réussi yoo xam ne ñoom ñoo ko créé mais tey toll lañ fa xam ne amuñu benn exemple amuñu benn référence zéro référence man dans mon secteur exemple je pense j'ai pas de référence pourtant man référence laa pour ñeneen tey c'est dans des occasions comme ça que man laay mën a wax tey fii dangay ngay génn ci émission bi nga pare mais mais combien de jeunes t'appellent wax ak yow ne la vraiment li ngay wax nii moom la ñuy dund lii nangam sangam yow looy mën a def lu dul dalal leen léegi leen dalal est-ce que xelam dal na. ce secteur bi moom est-ce que épargné wul na. ci non euh, jamais de mais ñoo ci ëppale. parce que tey boo xoolee quatre-vingt pour cent jeunes yi ñu ngi scooter di dawal même télé bi ñii xëy di liggéey fii am na ñu ci jënd scooter am booy bu ñu ko jox. wala am na ko xam ne yor scooter bu wàccee xool nan la mën a def pour mën a yokk un peu kon mais 82 pour cent de jeunes yooyu ñu ngi ci secteur bi secteur bi gën a am doole mën nañu Sénégal parce que transport ëpp a doole tey dëkk bi dafa toll ci jokkalante rapprocher les villes loolu mooy doxal àdduna tey da ngay toll fu la nekk commandé wala loo soxla ñi ñuy indi la ko mais loolu noonu mënoo toog secteur bu toll noonu yoo xam ne jeunes yi yaakaar biñ ci am ba yow sa neveu buy ñëw danaa la tonton doo ma jëndal benn scooter mu wut permis mën naa dem. mais nga ne secteur boobu ñan ñoo ci ne ñu ne la diw ak diw ak diw peut-être ñoo ciy pionnier diw ak diw ñi nga ne diw ak diw fu ñu toll ñu ne la toll ñu fenn mais loolu dafa ñaaw léegi ñun nan la ñuy jaayee rêve nan lañ leen di jaayee rêve bi doo ko mën. amul modèle bu mën a inspirer yeneen mais mais ñun la ñuy gis sax ñun la ñuy jàppee modèle ah mais comme li may wax est-ce que ñun suñu bopp sax ñun ça va. loolu lay première ah question bi ça ne va pas. ah mais ça va pas du tout ça va pas du tout mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix on est on est tellement ancré que. dañu naan benn moment on va pas faire marche arrière parce que on a un esprit de businessman on a un esprit de d'homme d'affaires on se dit que jusqu'à la dernière minute ça va parce que bu dul dara am nañu yaakaar ci ñun on a des centaines de jeunes qui sont derrière nous yoo xam ne am nañ un minimum yaakaar si ñun mais si on laisse les bras mais ils vont faire comment ñun ñoo war a discuter ak ñoom bu leen dem toog leen dëkk bi ñoo ko moom day baax day lii day nangam day sàngam mais da ngay dem ba benn moment. tu n'as même plus de discours tu n'as même plus d'argument tu n'as même plus quoi dire da ngay tiit nit ki léegi si yàlla nga koy jaarale wala si religion wala feneen tu le mets même plus sur sur liggéey wala autre chose si yàlla nga ko mën a jaarale no xaru la yàlla bëggul lii bëggul lële noonu ngay mujj def léegi ñun ñëpp ay waarkat lañ on est même plus dedans dans l'entrepreneuriat non dañoo nekk li ay waarkat dañu lay waar waaw dañuy jéem a dugg sa biir xel gëm loolu de yàlla xaru dee nangam sàngam mais bu dul loolu leneen lañ lay ma la wax toogal fii liggéey da nga am milliard wala da def lii parce que aw maa ngi liggéey depuis tant d'années aw ma ko j'ai les j'ai des tout le temps da ngay jugo ko wàcc di dóor wàcc suul bukki sulli dugg fii génn fële mais nan laay waxee que le toogal man ma xam difficulté yu ma nekk nekk c'est c'est un peu l'hypocrisie mm-hmm. parce que damay xam man li may dund ma bëgg ko jaay benn leneen loolu àndul ci conseil des ministres bi passé président de la république euh, demande na gouvernement ñu def seen képp lay kattan ba renforcer sécurité bi ci euh, géej géej yooyu ba xale yi euh, bañ a bañ bañ dem parce que dañoo jàpp comme ni ñu doon waxee sànq que xale yi ni ñuy demee dafa dafa yomb trop ba ñenn ñi sax di soupçonné ne est-ce amul volonté boo xam dañoo bëgg xale yi génn fi débarrasse ñu débarrassé wu ci ñoom te itam mu chargé tamit euh, ministère de la jeunesse bi nga xam ne mooy sa ministère de tutelle pour ñu tamit ñoom ñu jéem xol seen programme yi ñu euh, jagleel ndaw yi naka la ñu ko mën a demee jaaye ndaw yi ba ndaw yi seen xel mën a dellu si waat est que yaakaar nga ni foofu solution bi si loolu la war a déparé. non gis nga comme li ma wax sànq rek géej gi moom teg fa surveillance pour man c'est comme jurgóot booy rek mooy nga teg surveillance mooy da nga leen di jurgóot mooy da leen di gën a da ngay gën a da gën a da gën a yokk prix bi pour man ñoom. dañuy tax prix bi yokk parce que léegi bu doon 500000 gars yi dañ ne 700000 la parce que il faut que ñu ut beneen système. Mhm. pour man jurgóot booy la rek da ngay da ngay gën a ngay gën a mettil affaire booy mooy da ngay tax ñu gëna a liggéeyaat pour am xaalis pour mën a demaat. d'accord ah kon solution. non du solution mais parce que mais parce que ku toog si géej gi <laughs> war a songu géej gi kooku daa ragal dee kooku pare na kooku la mort c'est plus une question pour lui. et si tu mets des policiers lan la ñu mën def dàq ji leen tiire leen jàpp leen nangam sangam jóobu leen kaso jàpp ñi mais ñooñu dépassé nañ stade boobu noonu ñoom stade boobu c'est terminé pour eux ils en sont tollatuñ foofu kon problème bi nekkul foofu problème bi mooy nga xam ki yor gaal gi mal bi lu tax mu choisir jël gaalam di ci yàpp ay clients bàyyi géej gi bàyyi jën yi dem di leen yóbbu ci boobu mooy première question parce que gaal bu amul gaa yi mënuñu fay dem. nga jéem a waxtaan ak ñooñu xam mais ban solution ngay trouver ak ñoom parce que ñoom ñoo la mën a indi solution bi tey boo duggee hôpital loo feebar feebar loo yor sa poos lu mu bëri bëri médecin bi donc nga mën a génne solution keneen du ko génne soudeur métallique bi du ko génne kon il faut ñooñu ñu wax la ban solution lañ la mën a proposer il faut toujours parler avec les bons interlocuteurs c'est très important ñooñu boo waxtaan ak ñoom ba pare ba ñu proposer la solution ñoom rek a mën a surveiller géej kenn gën leen xam géej gi kenn gën leen xam kenn gën leen mën a bañ a jël intention bañ a dem si géej gi nga am loo leen jaay ba ñoom ñu mën a choisir dem jëli jën que de yàpp ay nit boo paree si ñooñu nga dem si jeunes yi waxtaan ak ñoom xam lan nga leen mën a jaay lan mooy seen problème ba ñu war a mën a songu géej gi ñooñu ñu wax la seen i problème ay solution peut-être génn fa ay wax génn fa parce que fu waxtaan parce que problème àdduna bi yëpp si waxtaan lay mujj tout le temps nit dina loo xam ne kenn xama ko war waxtaan yooyu amoon na fii waaw mais boo xoolee événement mars yi président woo na ndaw tey nga xool nga sax annoncé woon xëyu ndaw yi waaw mais boo xoolee tey je pense que président def analyse dina gis ne peut-être loolu mu defoon amul résultat dina gis ne jokkoo beeg xëyu ndaw yi mu defoon gis na ne amul résultat parce que tey gis na lim ci bëggoon antuwul mais dina essayer beneen pexe dina xam ne peut-être jotaloo bon interlocuteurs yi dina xam ne peut-être ñi mu waroon waxal waxul ak ñoom te on a mis la jeunesse comme ni nga ko waxee ki notre interlocuteur mais tey kan lay interlocuteur man du sama secteur man ministre avant ñu daj ñu daje conseil des ministres euh, conseil interministériel wala yooyu noonu mais ñun suñu secteur tey amoon ñu ci convoqué te quand même lu mu bon bon bon même bu dee même bu dee une bu dee xeer bu ndaw teg nañ ko fi ñun réew mi chaque jour moo ko moo ñu ameel parce que ñun dañoo dem wuti ji ñëw indi ko ci réew mi ñun réew mi jànguñu suñu jàngu sorewul amuñu bourse amuñu dara dañoo dem uti indi kon réew me ñu amel parce que dañuy essayer def dara mais ñoom ñëpp ñoo ameel réew mi parce que dañoo am ay bourse dañoo jàng dañoo def lii état financé leen nangam sàngam ba pare état jël ay moyens teg ko seeni loxo pour ñu doxal ñoom ñoo ñu ameel mais j'ai l'impression que day mel ni on est dans deux mondes day mel ni on se comprend part Sénégal léegi wax fi sax dafa difficile parce que quand booy wax da ngay wax pour njëriñ génn ci mais léegi booy wax day mel da dangay wax ak da ñi ngay waxal dañ lay considérer comme seen ennemi alors que Sénégal benn Sénégal benn carte d'identité la. ñu bind si république du Sénégal man du ma mus a wax wala ma def loo xam ne day suuxal Sénégal wala te def Sénégal jëm ginnaaw lépp lu may wax wala lu may def damay bëgg réew mi jëm kanam parce que réew mi jëm kanam sama arrangement la sama intérêt la loolu bu dul woon loolu mais tey ñibbi Sénégal insécurité la. Hmm. insécurité la boo feebaree boo amul xaalis doo faju say doom pour ñu jàngi da ngay fay tu as tous les problèmes alors fi nga nekkoon yaa ngi liggéey di xëy di gontu samay doom bu ñu feebaree leen faj dina am accompagnement. dinaa nekk en sécurité nga bàyyi loolu yëpp ñëw fii c'est parce que gëm nga réew mi am na loo bëggal sa réew. mais tey est-ce que jotul tey programme yooyu ñu jagleeloon ndaw yi yëpp pour mu ëttal leen xëy ak i entrepreneuriat financement est-ce que jotul ñu évaluer programme yooyu. non évaluer bu mag sax ba man maay président ma nekkoon président su ma defee évaluer damay évaluer pare def des sanctions pour man mesures bi ñu doon jël bu ñu doon jël ay mesures fii je les contre des ministres et les directeurs parce que ñoom laa jox moyens parce que ñoom laa teg condition ah, mais booy bu ñu jëlee géej gi kay mooy liggéey bi am na fu fayit bu dee 400 milliards yooyu existe na kon am na fayit parce que 400 milliards bu ñu ko doon séddale tey jeunesse bi ku nekk di nga si am dara loo mën a def sa poche te Sénégal dañoo war a arrêté dama koy dégg chaque jour ñu naan jeunes yi dañoo yàkkamti man su ma amee 7 millions mën naa fi liggéey mën naa fi am lii on a kenn kenn on a disconvient pas commencer dafa yomb mais commencer du problème mais li lay accompagner mooy problème. bu doon liir dafa judd rek ñu ne ok juddu yomb na judd na rek ñu taxaw di ko seetaan du dem fen day de mais ni xale soxla accompagnement juddu ñu jàngal ko dox di ko jàngal lekk di ko jàngal naan di ko jox éducation liggéey c'est la même chose nit ki bu amee 7 million dafa soxla lu ko accompagner il a besoin des accompagnements la banque il a besoin des accompagnements des institutions pour bu soxlee kayit pour mu xam nan la war a def war nan la war a lii nan la war a laa ñu accompagner ko ba mu nekk une grande structure. loolu état waaw mi ngi noonu léegi nag problème bi yëpp fa la jógee booy ba ñu dara mais Nicaragua man ki mujj dem bi mu ma waxee ne ma li mu gis foofu si ay sénégalais à peu près y en a au mais 1000 fois 7 millions du 7 milliards mooy kon président bu toogoon ne jeunes yi boo leen ma joxee 7 milliards. ma defaree leen léegi li duñ ko mobiliser mille personnes yooyu kese mobiliser nañ ko de waxtuma la ak ñi romb ak ñi dem ci géej gi mooy cette jeunesse et même prêt à mobiliser des fonds cette jeunesse a mobilisé 7 milliards mooy li ma wax nii rek à peu près mooy kon jeunesse bi tey boo leen jaayoon dara sax nga leen génn leen xaalis ma defar leen lii dingeen ngeen toll fii yaakaar naa ni dinañ ko def am naa ci yaakaar man que dinañ génne fonds yi teg ko parce que ñoom bañuy dara booy fi nekk ay jàmbaar da ngay gis benn bu bu cumuler 5 liggéey. pour mën si génn cinq c'est vrai que pression sociale bi tam am na doole ñu ngi ñaan parents yi tamit ñu comprendre ñu comprendre seen doom yi des fois situation yi difficile na mais accompagnement du mus a jeex ba ci parent yi parce que am na benn pression sociale bu bu bu bu bu xale yi di dund ci biir kër yi da ñàkk jom amoo sa morom yaa ngi nii sa doom bii lii sa nangam sangam kooku tamit yaa ngi ko teg benn pression boo xam ne peut moom. psychologiquement antanu ko. Mm, amal jom. waaw suñu dëkkandoo bi doomam dem na. exactement voilà. ñu jàpp ne tamit àdduna tamit comme on le dit tous les jours rek. dañuy xëy di ci nekk rek yàllaa xam yàllaay joxe parents léegi looloo fi am de léegi kay moom cotisation la ngay gis man dégg naa si rajo benn parent bu ne dafa ñaanal ñaari doomam pour ñu dem ñu moom moo leen ñaanal mhm. avant da doon laaxatu léegi xoolal affaire bi di évoluer mhm. affaire bi dafa dem ba léegi da ngay ñëw am sa xaalis dugg sa kër damay dem jël gaal ñu ne la waaw ku baax nga taalal sa loxo ñu ñaanal la ñu préparer la sax dañ lay préparer ñoom psychologiquement. Mhm. pour yow nga mën a dem au lieu que ñu ñu ñu décourager la léegi ñoo lay préparer kon affaire bi dafa atteindre benn niveau extra mais extraordinaire. et c'est vraiment triste pour sunu Sénégal man su ma gisee yu mel nii daf may attristé parce que damay dem ba benn moment je me pose beaucoup de questions on pose énormément de questions énormément de questions yoo xam ne amuñu réponse parce que ñun ñii interlocuteur. man c'est dans ces occasions laay mën a wax li ma xalaat laay essayer déverser comme ni nga ko waxee tu essaies de déverser parce que da ngay toll benn niveau boo xam ne peut-être man je discute avec des jeunes entrepreneurs comme man je discute avec des jeunes yoo xam ne yaakaar nañ ma mais am na benn discours boo xam ne mënu ko am am na loo xam ne mënu ma leen ko wax bu ñu nee damaa bëgg dem mais du leen ok damaa bëgg def lii damaa bëgg jaay sama lii mais du ma la wax waaw il faut que j'ai un autre discours a jàppale ah. loolu rek lañ am on n'a buñ ñëwee ñu bokk ak ñoom li ñu am parce que léegi bokkoo fi am on travaille même plus pour atteindre un, un cap on travaille pour bokkoo parce que ñun ñëpp on est des sénégalais non fa la toll dañuy bokkoo li ñu am dañuy liggéey pour bokkoo xam ne ñun ñoo moom Sénégal day jeune day ñëw expliquer situation des fois malgré tout nga jël ko yow bu weer bi dee nga daw def gauche droite parce que da ngay jàpp ne rôle boobu nga fi am loolu nga fi mën a jouer nga bokk ak ñoom li ñu am ñoom tam ñu ñëw indi seen doole indi seen kàttan pour mu mën a dox ñun ñëpp ñu ànd bokkoo dara loolu loolu la ñuy dund léegi ñoo ñu noonu lan nga leen di wax te obligé d'avoir un discours ñun nag loolu lañ leen di dimbalee chaque jour nag li ñuy wax ni chaque jour c'est pour l'intérêt du Sénégal ñoom il faut ñu dégloo ñu nopp bu baax mais chaque fois da ngay wax rek dañ lay dañ lay dañ lay segmentiser dañ lay jox benn coloration ne non lii ki àndul ak ñun kii def lii ki nangam non il faut prendre les choses positivement xam ne ñun ñoo nekk ci terrain bi booy ñun ñoo ñun ñooy mën a wax ñoom parce que ñun ñoo bokk ak ñoom même discours même langage boo jëlee fële ku ñëw costume cravate bu ñëwee li muy wax xamuñu ko daf ñuy expliquer loo xam ne système de la de tu de moom. tu comprends rien non. parce que i i programme on parle pas le même langage ak surtout milliards yi ci dugal. man a moo tax ma ne président xanaa lii nag moom dina si jël dina dina jël ay mesures comme mesures yi ñuy wax j'espère que gars yi nañ jël ay mesures si ñoom. parce que man de man du ma nangu dugal sama entreprise un million wala deux millions di si topp suba ma ñëw am yenn défaillance yu ma si gis yoo xam ne xaalis boo waroon na tax défaillance yooyu du am déjà un million deux millions dama ko nangu kon du ma nangu dugal quatre cent milliards dugal tant de milliards xëy ñu naan ma deux cent jeunes dee nañ trois cent jeunes dee nañ tant de jeunes ñu ngi bloqué fii la question mooy mais lan mooy problème bi boo waxee ñu ne booy dañoo yàkkamti booy dañoo lii booy nangam de du loolu yëpp de. booy dañoo gis ne réew mi dañ fee munta tekk dañu fee munta am dara gis immeuble yi ñuy tabax bu gën a rafet sa morom nga ne bii mais immeuble yooyu dañuy poser question pour kan la ñan ñoo fa nar a dëkk bu dee boo amee problème fay location cent mille francs doo dem dëkk location deux cent euh, deux millions naan dangay ngay jënd appartement cinq cent millions alors que ñun ñoo ci waroon rêvé dugg gis muy waaja pare nga dem di si dox di ko waxaale pour dugg ci mais bokkatul da nga koy xool nga ne lii du man ñu tabax ko sa réew. tabax sa suufu réew nga romb ko ne yii lii man du pour man lii bokk ma ci c'est triste nga gis oto yi rafet di fi daw nga romb nga ne lii du pour man ñun nag fu ñu toll tamit comme je dis on est des hommes d'affaires on essaie de montrer une bonne image on essaie de tout le temps debout mais difficultés yi ñu ngi fi te comme li ma lay wax il faut que ñu ay interlocuteurs am ñoo xam ne da ngay wax ak ñoom ñu xam fooy toll xam des problèmes réglé ko tous ces institutions sont bien on en fait quand même defar tamit comme li may toujours yombul le président jéem na FONGIP mi ngi fi mais FONGIP amul banque yu ko suivre FONGIP bu ñu jox la garantie boo demee si banque yi du la sax faale balaa ñoo toppatoo sa dossier na jël 2 ans wala 3 ans yow fekk boobu dee. danañu war a liggéey ba am banque boo xam ne Sénégal moo ko moom. Ah. banque bu dëgër. DER tamit yi fi nekk yëpp waa bitim réew ñoo leen moom. waaw DER tamit jéem na fonds ñëw accompagner ñi des mais peut-être calcul boobu yeggul mais aujourd'hui dañ créé ay champion dañ créé dëkk bi loolu la manqué. Ah, dëkk bi président 4 mois moo ko lu mu mënul def ci 12 ans yi war na ko mën a def ci 4 mois yi ko dese. loolu tu sais man comme li chaque jour man man xelu businessman ak entrepreneur laa mooy man balaa dernière minute il faut may yaakaar tout le temps que ne mën na sotti kon man moyen boobu laa yor mindset boobu laa yor kon je me dis que jusqu'à la dara nit dina fa tudd loo xam ne ndekete moo nekkoon point focus su blocage bi. même bu dee benn fan mu dem yóbbaale ko sax au moins mu nekk loo xam ne comme continuer la gars yi am na yaakaar ne lii fii ak 2027 problème bi dina réglé wu au moins mu am dara loo xam ne na ko yóbbaale parce que tey nii nii fin de mandat mu nar a yóbbaale li kese je lui souhaite pas au président que ces morts là des jeunes qui n'ont plus d'espoir qui meurent qui nangam sangam alors ko buntu espoir nga duggee woon bëgg a génnee buntu désespoir àndul kon nag damay toujours damay damay damay damay damay damay rafet njot damay rafet njot parce que bugguma xëyaat suba ñu ne ma 200 dee nañ 30 dee nañ 20 dee nañ kon loolu ñaaw